wa ànd mas naa ak naka mas naa wa thulaasa ak thulaasa lafzaani ñaari baat lañu lil xadadi ñeel lim ba xalaa suuratin ci aw melo xaas sëtn wi aji ràññiku wa misluhuma seenum kem la uhaadu ay benn benn wa mawhadu ak ay benn benn xushaaru ak ay fukk fukk wa maasharu ak ay fukk fukk wa ànd kalimata uxra ak naka baatub uxra yeneen jamhun jamhu la li uxra ñeel uxra bi maxnaa muxaayiratin ci maxnaam muxaayiratin aji wutante boo delloo xoolaat sifa yi da nga gis ne ki nga njëkk a wax muy xatshaan gannaaw ba mu doonee sifa dafa tëggoo faalaan maanaam ñu loolu ci mujj alif ak noonu te njëlbeen gi maas masket ci kaw muy faalaan ki xatshaan xadbaan rayyaan ak yu bare bare bu ci topp muy asbaq boo ko dee xool gannaaw ba mu doonee sifa dafa tëggoo afxal ak asbaq akbar asgar muy wéy boo seetloo nag masna ak sulaasa dañuy ñaari baat lim yoo xam ne kee dafa tëggoo fuxaala kee tëggoo mafxala doolu masna mafxala la tëggoo alif da ci mujj rek waaye moo nga ne woon uxaada mawxada sunaa a masna sulaasa maslasa rubaaxa marbaaxa ñoo bokk maanaam daal baat lim ba benn tëggoo na fuxaala mbaa tëggoo na mafxala ba noppi nag di wane nu muy tegalee lim ba tegale boo xam ne ba ràññiku la moom rek ci niñ ko tëggee noonu moo ko mën a andi boo seetloo nag uxara moom xam ne jamxu taksiir la boo xam ne kenn ka uxraa la woon ñu tëgg ko nag fuxalu muy uxaru jublu ci yeneeni jigéen wa isa baxasta ndem gëstu nga xan iraabi haadihi sifaati walis iraabu yi lay melo raaytaxaa nga gis leen fil am silit ca misaal ya imma marfuxatan benn ñuy lu ñu rafaa wa imma mansuubatan wala benn ñu lu ñu nasab wa imma majruratan wala benn ñu lu ñu jar wa raayta te nga gis ne annaxaa naka ñoom turfaamu deef na leen rafaaye bi dammat ci dàmm wa tun saw te def leen nasabe bil fatxati ci fataa walakin naxaa waaye ñoom nag tu jarru def na leen jare bil fatxati ci fataa wa wajatta te nga fekk it ne annaxaa naka ñoom xaaliyatun aji wéet lañu mina tanwin ci tanwin aw wala nga ne mamnuatun lu ñu aaya lañu mina sarfi ci tanwin wala nga ne sarfu soppi benn lañu boo dee xool nag nooy ihraabe sifa yi nga wax da nga gis ne foo leen xool ci misaal yi nga jàng koo ci gis rek benn dafa rafaa mbaa dafa nasab mbaa dafa jar boo xoolee fa nga xam ne fa la rafaaye mbaa fa la nasabi moom du la bett ndax la nga xamoon ci rafaa ak nasab rek moom nga fay gis béréb bu rafaa ba dam moo fa nekk béréb bu nasab ba fataa moo fa nekk fa la war a bett rek mooy béréb bu jarga moom doo gis kasara fataa ngay gis nga dool ci nag wax ne baat yi mel dañuy bañ ku leen maas yaari maas ko nga cay bàyyi rek benn maas ka moo xam lonk la moo xam yet la ca kaw lu mu ci mën doon daal bàyyi fa benn rek maas ka waaye bul ko def yaar foofu nag nga seetlu ne baati lim yi da leen a tudde sifa daañu leen wax sifa nag ndax noonee ñuy melale tegtaloog lim ba ay benn benn ay ñaar ñaar ay ñett ñett muy wéy waaye boo koy jàng nag ci téere yi ci des dañuy xamle ne yaari sabab da cee tase benn bi mooy sifa gi nga tudd te borom téere bi tudd ko akuk njengal nag njengal mooy baat bi ñu wëlbati ko jële ko ci tëggam cosaanoo woon def ko neneen nu bokkut ak noona ñoom dañuy jàpp ne boo nee jaa u uhaada wala mawhada wala jaa u tulaasa mbaa mas la sa muy wéy cosaan la moo doon jaa oo waaxidan waaxidan wala jaa u snayni snayni wala jaa u salaasatan salaasa ñu jàngal nag ñaari baat ñi ba def ko muy benn te benn bi mën a firi la ñaar ñi daan firi xam ne kon jàngal gu rek di sifa ñoom lañ koy tuddee li nga wax nag ci uxaru muy jamxu ci uxraa uxraa itam jàppal ne am na góor mooy aaxaru boo ne aaxaru day firi geneen góor mbaa leneen lu góor uxraa di firi jeneen jigéen mbaa leneen lu jigéen jamhu bu nekk maanaam boo bëggee jamhu uxra uxaru lay doon soo bëggee jamhu aaxaru aaxaroona jamhu muzakkar lay doon loolu na say boo takk ko muy takk takk bu yaatoo yaatu li ñu tuddee afxalu tafdil maanaam boo tëggee ca baat ba afxalu jublu ca ka ëppale ca loola niki akbaru ka gën a mage asxaru ka gën a ndawe aalamu ka gën a xam ahsanu ka gën a rafet aajabu la gën a yéemu lu mel noonu la ñu tuddee afxalu tafdil say boo teel a takk ne góor ga ak jigéen ja ak jam ba boo ko jamoo taksiir yépp dañuy nekk mam noox mina sarf wala nga ne maalaayam sarif ndax dañuy jàpp ne af xalu tafdil la doon cosaan mooy kenn du ko jigéenal kenn du ko tasniya kenn du ko jamhu kon nag buñ ko jigéenalee jàngal nañ ko buñ ko jamu kon nag muy njàngal gu ànd ak sifa loolu moo tax foo fekk af xalu tafdil góor ga nekk mufrat ak jigéen ja nekk mufrat ak jamhu taksir ba yépp dañuy doon malaayan sarif niki akbaru mooy góor ga bu dee ci baat boobu kubra mooy jigéen ja kubaru kubaru mooy jamhu ba bu dee asgar mooy doon góor suxra doon jigéen suxaru doon jamhu ba ahsanu ka gën a rafet bu dee góor xusna bu dee jigéen xusanu bu dee jamhu ba yépp nag jàppal ne ku ci nekk mamnoo mina sarfi la wala nga ne maalayan sarif la alqaidatu tumnaaw def na tere asifatu sifa ba mina sarfi ci tanwiin wattu jarru te def ko jare bil fatxati ci fata niyaabatan mu di awootu anil kasrati walis kasara awalan ida kaanat ndem nekk na xalaa wasni faalaana ci mandaxim faalaan taaniyan ida kaanat ndem nekk na xalaa wasni afala ci mandaxim afala taalitan fi uxaada ci uxaada wa mawxada ak mawxada ilaa xushaara ba ci xushaara wa machara ak machara wa fi kalimati uxara ak ci baatub uxara kon sifa la koy taxa doon mamnuux min sarf nga xam doo ko maas yaari maas ko ba noppi tam boo koy jar jare ko fata bañ koo jare kasara lay tax sifa am boobu àtte am na ñetti anam bu jëkk bi mooy bu fekkee dafa tëggoo faalaan ca mujj ko ñu yokk ci alif ak nuun te njëlbin ko maas yet muy faalaan nekk xat shaan bi nga weesu woon ñaari bi mooy sifa bu tëggoo af xala ndax bu tëggoo af xala day daal di amee màndaxim fexal moo tax ak nag baat lim yi tàmbalee benn ba ci fukk buñ leen jéngalee ñu tëggoo fuxaala mbaa mafxala anam googu sifa la aw melo la ci noonee ñu waññee ba noppi nag di jéngal boole ci nga xam ne ak njàngal la gu booleeg di sifa su boobaa day daal nekk maalayin sarif mbaa nga ne mamnoo mina sarf ak nag ci baatu uxara uxara moom day ne woon jamxu taksir la ci uxra te uxra mooy jigéeni afxalu tafdil kooku dañuy jàpp ne sifa la waaye dañ koo jàngal boole ci ndax afxalu tafdil waree su ko jigéenal ci aada waree su ko tasniye waree su ko jamxu kon nag bi ñu ko jigéenalee mbaañ jamxu ko jàngal nañ ko mën ngaa takk foo fekk afxalu tafdil dañ koy àtte àtte maalayan sarif moo xam góor ga la moo xam jigéen ci la moo xam bañ ko jamoo taksir la léegi boo nee ak baru mooy góor gi kubra mooy jigéen ji kubaru mooy jamu bi ay jàppal ne yépp rek ak yu mel ni ñoom dañ daal di bokk ci maalayan sarif ndax dañ leen jàngal ba noppi ñuy sifa boole ci almamnuhu min asarfi li siixati muntahal jumuhi ngir tëgguk yamukaayu jamhu ya aw alifi tanisi wala alifuk tanis li tax baata nekk mam noox mi na sarfu beesu nañ ci ñaari dog bi ñu toll mooy bu ñetteel bi dog bi mu toll mooy bi nga xam ne la ko taxa doon mam noox mi na sarfu mooy dañ ko jamxu yemukaayu jamxu nga xam ne buñ jamxu baat ba àgg foofa mëneesu ko jamxu waataat foofa la jamxu ba mën a am wala boog mu am alifuk taanis al am tilatu um si at soseef na madaarisu ay école shahatu jàkkaarloo na maag madaarisa ay école taalamtu jànge naa fii madaarisa ci ay école haatihi yile xasaafiiru ay picc yu ndaw lañu di leen di wax ay ndeeteet ay picc yu ndaw atlaqtu boyal naa maanaam libéré naa bàyyi naa ñu dem rek xasaafiira ay picc yu ndaw ak laa talaxab bul foye bi xasaafiira ci ay picc yu ndaw ak haadihi li le saxaraawu ab àll la ak ixtaraqtu ful naa xotti naa maanaam jaar naa ci biir saxra ab àll saxra yamurru dana romb aljamalu gëléem nga fii saxra ci biir ab àll al wala du xale ba an najibu ba di aw tànneef nooma xéewal la am doom ju baax a baax ju daañu ko xéewal la maara etu gisuma nooma xéewal ka sixati gu mel ne wéru yaram maanaam daal xéewal yi bari ne waaye gu ci mel ne wéru yaram yombut xaabil na nga jàkkaarloog an ni amata xéewal ga bi nooma ci xéewal maanaam ku la defal njekk faye ko njekk mu ne ku la defal xéewal daal defal ko xéewal bu ñëw ci albaxs te amal seetantalal fil am silati ci misaal yi assaabiqati aji jiitu alkalimaati baat jile madaaris wa xasaafiir wa saxraau wa nooma te jit kon nga fekk ne ann madaarisa naka madaaris jamhu taksir jamhu taksir la bihi boobu nekk na ci moom alifun alif alif zaidatun guddi aji yokku baadaha goog nekk na ci gannaawam xarfaan yaari araf wa anna xasaafiir ak naka xasaafiir jamu taksir jamhu taksir la aydan ba tey bihi boobu nekk na ci moom alifun alif zaidatun guddi aji yokku baadaha goog nekk na ci gannaawam talaasatu ahrufin ñetti araf boo seetloo gis ne madaris ak xasaafiir ak saxra ak nooma ay baat la yu ñëw ci misaal yi nga jàng ba weesu ko waaye mën ngaa njëkk a tàmbalee ci baatub madaris boo seetloo gis ne jamxu taksir la boo xam ne soo dee wàññi araf yi soo dee wàññi araf yi alif mooy nekk ñetteel ba boo weesoo alif tekki rek yaari araf baat ba daal fay yem boo ne mada risu alif mooy nekk ñetteel bi yaari araf topp ca baat ba dal fa yem soo jàllee nag ci xasa fiiru gis ne moom it alif mooy ñetteel ba ci booy wàññi araf yi waaye yetti araf moo ci topp te yaaju masut nekk ci digg ba na nga xàmmee tegtal boobu baat boo xam ne alifay ñetteel ba muy jamu taksir te boo weesoo alif ga boo ci tegaatee yaari araf rek baat ba yem foofu mbaa boog alifay ñetteel ba boo xoolee gannaaw alif nanga ko gis yetti araf yoo xam ne yaaju maasut moo nekk ci seen diggante wa kullu jamhin bépp jamhu yaji boobu dana dikk xalaa haatayni suuratayni ci la yaari melo yuqaal def na wax ne innahu naka moom xalaa siixati muntaxal jumooxi nekk na ci tëggug yemukaayu jamhu ya maanaam baat boo gis rek muy jamxu taksir boo xam ne alif mooy ñetteel ba ci booy wàññi araf ya boo ko weesoo teg ci yaar araf rek yem ca baat ba yem fa mbaa yetti araf topp ci alif ga te ci digg ba am yaaju maasut foo ko fekk xamal ne yemukaayu jamxu la mooy buñ jamxoo baat ba àgg foofu mënuñoo jàll jamxuwaat ko amma saxraaw ndaal saxraaw wa nooma ak nooma fa innal uulaa naka ku jëkk ka maxtoo matum lu ñu mottalee la bi alifi ta'anis ci alif gu jigéenal ga almam doo dati gadi guñ bijji wa taaniyatu ñaareel ba maxtoomatun lu ñu mottulee la bi alifi ta anisi ci alifu jigéenal ga al maqsurati ga di guñ xasru wala ga di guñ ga boo seetloo nag saxraawu ak nooma kenn ku ci nekk dañ ko njigéenale alif waaye ku jëkk ki alifam dañ koy wooye mamduuda maanaam ak tikkin moo ci mujj alif jiitu ko goo xam ne dafa bijji fataa ndax boo nee saxraawu alif gi ra la bijji alif gi la noonu mooy mamduuda maqsoora nag mooy alif gu war yan ra ci dañ koy xàmmee ci waxin wala fu gën a yomb alifu jigéenal ñaar la mën naa nekk mamduuda mën naa nekk maqsuura wa isaa baxaste boo gëstoo xan xarakaati awaaxiri haadihi kalimaati walis maska yi mujj yi lay baat raayta nga gis ne annaha naka ñoom turfaamu def na leen rafaaye bit dammat ci damm watun sabu te defi leen nasabe bil fatxati ci fataa wattu jaru te defi leen jare bil fatxati ci fataa wa annaha ak naka ñoom maam noo atul lu ñu aaya lañu bina sarfi ci tanwin mu ne nag boo seetloo baat yi nga wax ba xam noo leen di xàmmee da nga gis ne fi ñëw ci biir misaal yi ku ci nekk ba muy rafaa dañ ko rafaaye tàmm ba muy nasab mu nasabi fataa waaye ba muy jar nag moom jarewul kasara dafa jare fataa tey da nga seetlu ne maasuñ ci kenn yaari maas ko kenn ku ci nekk kenn maas ko moo fi nekk loolu nag moom la ñuy tuddee almamnooxu mina sarfi mbaa maalayan sarif ñëw ci alqaidatu yum naaw def na tere al ismu lisim ba mina sarfi ci tanwiin wayu jarru te def ko jare bil fataxati ci fataa niyaabatan fataa ga doon ak wuutu anil kasrati walis kasara awalan ida kaana bu nekkee xalaa siixati muntaxal jumooxi ci teguk yamukaayu jamxu ya taaniyan ida kaana bu nekkee maxtooma ndi luñ mottalee bi alifi ta anis ci alifu njigéenal ga al mamdoodati ga di guñ bijji taalisan ida kaana ndem nekk na maxtooman di lu ñu mottalee bi alifi ta anis ci alifu njigéenal ga al maqsoorati ga diguñ xasru mën ngaa takk ne bu fekkee ne lisim ba dafa nekk jamxu taksiir te doon siixatu muntaxal jumoo nga xam ne daal takk-takk ba nga weesu woon am na ca alifay ñetteel ba boo ko weesoo teg ci yaat araf mba alifay ñetteel ba boo ko weesoo teg ci yetti araf yoo xam ne yaa ju maasul moo nekk seen diggante foo fekk boobu baat ci téere yi jàppal ne war naa nekk maam noox mi na sarf maanaam boo ko dee jar danga koy jare fataa ba noppi itam nag bul ko maas yaari maas ko ba tey bu fekkee lisim ba dañ koo jigéenali alif te alifu jigéenal yaar la mën naa nekk gu ñuy bijji mooy tikkin mujj ca baat ba alif jiitu ko te fekk alif ga topp fataa bu fekkee ne miinoo wax yi nu tikkin tikkin boo ko déggee rek mooy am sa alif gi ci des mooy alif gi wax maqsuura alif gu ñu ga maanaam dañoo ga ihraab ba ca alif ga ihraab ba du feeñ benn yoon mën nga koo xàmmee nag ci ne rek mooy alif gu war yanara waaye nag da nga di gis lu baree bari baat boo xam ne alif gu mel ne kenn ci yaar yi da caa mujj te du tax ñu ihraab ko maalayan sarif la koy waral mooy alif ga dafa wecc waaw mbaa yaa gu cosaano woon ca baat ba nga xam ne kon mën nga ne alif ga cosaan la ca baat ba ndax la mu wecc muy waaw wala yaa cosaan la woon ca baat ba alif yi mel nii du tee baat ba soppiku maanaam doo ko boole ci almam nooxu mina sarf balaa bokk ci almam noox mina sarf rek alif ga doon ndolleen ca baat ba ñeenteel bi mooy jarul mam nooxi jar lañu tere mina sarfi ci soppi bil kasri ci kasara li nga ne woon dafa nekk almam noox mina sarfu ñu daa ko jare fataa day am nag fu ñu koy jare kasara bàyyi fataaga moom lay bëgg a wax mu njëkkee al am silatu at naytu tagg naa xalaa asbaqi laaibina ci gën jaarawi way foña sallamtu nuyu naa xala tilmiidi ci élève ba al asbaq yi ba gën a raw yajibu dana war al iktaaru baril ga min madarisi shinahati ci école yi jàngale xarala wala métier école yi jàngale xarala ak métier dañ ko war a baril bil madaris ci école yi kat tarxaa lay yéege al umamu xeet ya maanaam bari daara yi jànge te xeet wi nangoo jàng mooy tax xeet wi jëm kaw tekki lool ci àdduna surirtu bëgga léef na ma min xasaafiiril xadiixati ci picc yu ndaw yi sardin ba dañuy firee xasaafiir ay ndeeteet ci wolof waaye mooy ay picc yu ndaw rek may bëgg naa ci picc yu ndaw yi nga xam ñoo nekk ca jardin ba tariptu sigire naa maare naa minal xasaafiiri ca picc yu ndaw ya tasiiru dana dox alxawaafilu njëg ya maanaam ña jëggi woon wuti ay marchandise ci daan def ay gëléem nag booba gëléema xewoon bi saxraa il xarab bi ci àllub arab yi maanaam ñi jéggi daal daanañ aw ci àll yu àll yooyu yor ay marchandise ak lañu sëf marchandise ya yaqillu dana néew almaa u ndox ma bis saxraa yi ci àll ba dañuy wax désert boo fa demee ndox dafay néew albaas xarafta xamoon nga mimmaa ci la nga xam ne sabaqa jiitu woon na ne anal kalimaat naka baat yi asbaq wa madaris wa xasaafiir wa saxraa mamnuhatun lu ñu tere lañ mina sarf ci soppi waa xarafta ci xamoon nga it ne àndal mamnuha naka lañ tere mina sarfi ci soppi wala nga ne tanwin ci jaru def na ko jare bil fatxat ci fata niyaabatan mu di aw wuutu anil kasrati walis kasara fahal tajidu ndax da nga fekk ne ann haadihil kalimaati naka yi lay baat al mamnuhata ya diñ tere mina sarfi ci soppi jurat dereef na leen bil fatxati ci fata fi haadihil amsilati ci lay misaal aljawaabu tontu li laa mooy laa déedéet wa innama jurrat naka jareef na leen bil kasrat ci kasara nee na boo seetloo baaj yi di asbaq ak madaris ak xasaafir ak saxara daa fekkoon nga xam ci gannaaw ne ñoom ñëpp mam noox mi na sarfu la maanaam kenn ku ci ne daal dañuy bañ ku ko maas yaay maas ko mbaa ku ko jare kasara ndax ku ci ne jàngal nga ko ci gannaaw ñu waxal la tax ñu di ko bañ a tanwin te di ko jare fata bàyyi kasara mu ne nag waaw ñu laajte ba xam nag boo ko xoolee nii ci biir misaal yi ndax la nga waxoon ne dañoo war a jare fata ndax fata fi nekk déedéet fata nekku fi de ndax da ngay wax xalaa asbaqil laa ibina néewoo xalaa asbaqa da ngay wax xala tilmiidil asbaqi doo wax xala tilmiisil asbaqa ngay wax min madarisi sinaati doo wax min madarisa sinaati bil madaris itam waxoo bil madarisa yépp noonu lañu mel nag jàngoon nga ñu ne dañoo war a jare fataa waaye fii nga leen gis nii moom ci misaal yi moom amu ci kenn ku jare fataa kon moo tax tontu li mooy laa déedéet jarewuñ leen fata ñu ngi leen jare kasara xam lu tax nag moo ci war mooy xëyra ànd naka ndare naka yow ida ahatta boo delloo an nazara xool ba fiihaa ci ñoom raayta nga gis ne an na kulla kalimati naka bépp baat min haa ci ñoom imma mudaafatun benn muy lu ñu daafal wa imma muqtarinatun wala benn muy aji lëkkaloo bi al ci al walaw an naka doonte naka yow tatabaata toppatoo nga ay kalimatin bu mu ci baat mamnoo atin bi di buñ tere mina sarfi ci soppi waxee te fekk na moom mudaafatu lu ñu daafal la aw fiihaa wala mu nekk ci moom al al dara ay te kon nga gis ne annahaa naka moom tu jarru def na ko jare bil kasrat ci kasara nee na boo delluwaatee xool misaal yu baax a baax da nga gis ne baat boo ne woon dañ koy bañ a soppi di ko jare fataa boo ko xoolee fii mu nekk moom ci misaal mi benn rek dañ ko laafal beneen baat mbaa boog ñu taara ko niki ala asbaqi laaibina asbaqi boobu dañ ko laafal al laaibina ala tilmidil asbaqi al asbaqi lañ ko taara moom boo ñëwee ci min madarisi shinaati madaris dañ ko daafal ashinaa soo nee bil madarisi dañ koo taara soo demee ba ci misaal yi mujj mujj ci saxaraa bi firi àll te nga waxoon ne mam noo xam ne sarfi la dañ ko war a jare fataa dañu ne bi saxaraa il arabi jare ko kasara bañ ko jare fataa la ko waral mooy dañ koo daafal al arabi jooju xanaa boo toppoon téere bañ jeex da nga gis ne baat bi la ne woon daa war a nekk malayan sarif bu xasee taara rek wala ñu daafal ko beneen baat rek doo ko jareeti fata da nga koy jare rek kasara mel ne bokkul ci malayan sarif takk-takk boobu lañ bëggoon a joxe takk-takk baa ngi nii sax alqaidatu yu jarru def na jare almamnuuxu la ñu tere mina sarfi ci soppi mbaa ci tanwiin bil kasarati ci kasara ida kaana bu nekkee mudaafan di lu ñu daafal aw bihi wala mu nekk ci moom al al kon takkal ne buñ ne baat bi bokk na ci maalayin sarif waaye fa mu taxaw moom dafa daaf beneen baat mbaa dañ ko faa taara kon dañ koy jare kasara te bañ koo jare fataa baat nag bu ko see taara mbaa mu daafam ak bu mën doon di nang ko tanwiin di nang ko maas yaari maas ko moom bu ñëw nag kon ci at tamrin al awal ayin ràññeelal fil ibaaraati ci wax yi al aatiyati aji dikk al aatiyati kulla mamnuin lépp lu ñu tere min sarfi maxa bayaani sababi ànd ak leeral sabab ba wax yi mu lay bëgg a wax dafa bëgg nga xool loo gis mu doon mamnu min sarfu nga ràññeel ko ne kii kat moom la wax itam ban sabab moo tax nga ne mamnu min sarfu la kaanat nekkoon na zeynabu zeynab bintul xuseyni mi doom bu jigéeni xuseynu af saxa di gën a rafet làmmiñ min kathirin ci ñu bari mina rijaali ci góor ñi zeynab mi nekkoon doom bu jigéeni al xuseynu ibnu aliyin ñoom ñëpp yal na yàlla gërëm leen zeynab moomu moo dàqoon a wax góor ñu bare bare boo seetloo baatu bu zeynab te toll nii bokk na ci maalaañ sarif li ko waral mooy day jigéen tey xalam boole ci ab saxa boo ko seetloo mu nekk sifa ba noppi nuru fi xal ab saxa boobu mooy ñu daan tuddee af xalu tafdil istihara siiwe woon na mu aaw yatub nu abi sufiyaana mu aaw yatu mi doomi abi sufiyaan bil xel mi ci lewet wakaana nekkoon na yasiidu yasiid ibnuhu kay doomam aqal di yées minhu ci moom siyaasatan ci man politique wa kiyaasatan ak ci ak ñaw muhaawiya muhaawiya siiw woon na lewet gum lewet ak tey gum daan tey ci mbir yi ak xam politique ak nu muy jaare ci mbir yi doomam bi ko wuutoon ñu koy wax yasiit nag doomam bi yasiit yéesoon na bàyyam muhaawiya ci man politique akuk yewuteeg muuste laa tujaadil bul dàggente wa antata fekk na yow xadbaanu ngay aji mer wala takulte bul lekk wa antata fekk na yow shabahaanu ngay aji regg maanaam jamono yoo meree moom bul di werante ka dàggante ndax nag xas nga mer moom ba jàllee ci dàggante mën na andi ay wuréeréy soo xasee regg na nga moytoo lekk teg ca ndax regg ba noppi lekkaat teg ca moom day indi ak wéré di indi ay yu bare bare zuhalu suhal ismu kawkabin turu biddiw la wa kawaaki bu samaay biddiwi asamaan ak saru ñoo gën a bari min an tux saa ci bu dee fi leen takk suhal daa mel ne omar alam boobu nga xam ne yetti araf la arafu njëkk wa maas maas ak lonk wa ca topp maas masket ci kaw ci la bokk zurtu wisite naa xadaiqa ay jardin fay xaa yu ajiyaatu zaata ashjaarin yu di boroomi garab xannaa yu aji soq wa azhaarin tey boroomi tóortóor katirat ñu aji bari min xamraa tàmbalee ci aji xong ilaa sofra a jëm ci aji tuur te mooy gel ilaa zarqa a jëm ci aji bula nemmiku naa ay sarde yu yaatoo yaatu yoo xam ne dañoo amee ay garab yu sëq sëq ak ay tóortóor yu bare bari te wuute yenn tóortóor ya xong yenn ya puur yenn ya bula liverpoolu liverpool baladun ab dëkk la tijaariyun buy ko jóg commerce azimun buy aji rëy liverpool daa bokk ci xalam yi nekk ak làkk maanaam joox ci làngu arab te cosaanoo wuñ ci xalam yi mel na mel ne london dañu daal nekk maa lañ sarif kaana nekkoon na saxbaanu saxbaan min xutaba it dawlati di bokk ci xutbakati nguur ga ak amawiyati ngay ko jóg banu umaya banu umayata bañ tolloo ci di falu